la ha la la fa la la ha la la fa la la ha la la fa la la ha la la fa la la ha la la fa la la ha asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la bu baax sëriñ Amdi Fall Modou mbend di xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi lay nuyu te di la ziar bu baax murit bii toog fi sawet nag mooy murit bu ñuy wax sëriñ Ablaye Sylla di taalibeb sëriñ Touba. waaye di ku bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall sama borom dogal nag am lu mu bëgg bëgg ko ci réew mi ñëwoon nag di tàmbali ab liggéeyam waaye tàmbalee ko fii ci dëkk bu sell bi di tuubaa fi nga xam ne fi la yaakaaram nekk muy Cheikh Ahmadou Bamba waaye fi la royukaayam nekk muy maam Cheikh Ibrahima Fall Babi dina nga xam ne moom lay roy ci jëf moom lay roy ci bëgg moom lay roy ci ak taalibe mu ne woon nag lépp lu ñuy def ci së lépp lu muy ñëw di ko def ci ci dëkk bu selli bii di Touba da koy jaare ci maam Cheikh Ibrahima Fall mooy buntu bi mooy buntu yoon wi ndax lu waaye jaarale ci Cheikh Ibrahima sëñ Touba dana ci jot te bu sëriñ bi jotee dana la ko defal na nga ko bëggee mu ne woon nag tey dafa ñëwoon ngir si sëriñ bi waaye jaar ci maam Cheikh Ibrahima Fall te yaa ko fi nekkal moo tax bu mu dugg see Touba xelam mépp nekk ci yow moo doon day daal di ñëw nag jaar fi yow ngir sàkk ko ay ñaan waaye sàkku itam ndimbal ci sa maam mi nga xam ne ku am dara ci yoon wi moo la ko jox nga dimbali ko te ñaanal ko ba li muy yootu mu jot moo tax mu àndoon ak njabootam gi bàyyi ko ba ndakaaru ànd ak sopp yi ak wëllëre yi ak taalibe yi ak mboolem njabootu Serigne Touba gi nga xam ne dañ koy jàppale ci liggéey bi muy seex yi muy doomi seex yi muy taalibe yëpp mu ne woon nag buntam mooy maam Cheikh Ibrahima Fall ndax moom la bëgg te lépp loo xamante ne bii Cheikh Ibrahima Fall nga koy jëf loolee bés bu yàlla sàkk mi ngi ciy bàyyi xel te lam ca mën ko néew ma ngi ko cee jëf te loolu sax njaboot mën nañ koo seede ndax bi muy yëg bi ñu yëgee ne mi ngi ñëw léegi rek ñenn ci njaboot gi seede nañ pas-pasam akuk taalibeem akuk jàpp akuk jàppam loolee la waxoon ne tey jii bu egsee nañ la ko leeral ci moom ay tànkam li ko tax a jóg mooy am lu mu bëgg ngir li mu bëgg ci réew mi mu am ko te nam ko bëggee te lépp mooy liggéey réew mi ak am yéene ci réew mi loolu la waxoon ci kàddu yi ñuy tàmbalee ci ay kàddoom du ñàkk euh, dana waxal boppam wala mu jox kenn ci ñi yor kàddoom mu waxal ko incha allah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ bi ñu ngi wàcce suñu jëmm di toroxlu ci sa wet ngir jëmm yàlla ak Cheikh Ibra Fall di jël suñu nuyoo di ko teg ci sa loxo Cheikh Ibra Fall day ku koy nattable am na loolu ump ci yoon bi ñun day nattable wuñ Cheikh Ibra ci dara kere bi ma woo nekk ndakaaru ànd ak rakkam ji ñuy wax sëñ si la ni ma man dama bëgg ñëw Touba dimanche fii laay ubbee sama campagne waaye nag Cheikh Ibrahima ay ñaanal ma soog a dem ba mu ko waxee laa ne ko li nga bëgg saa borom mën na koo jàppandal boo ma waxoon leen dinaa diibantal mais dinaa def le tout pour xaar la boo ñëwee ñu ànd dem ci Cheikh laa sawar te ma xam yow yaa ko yor lu waaye am ci sëñ Tuubaa Cheikh Ibra Fall loolu amul sax lu ñuy sikki sàkk ñun loolu nag bu amee moom mii mu jóg fas yéene ànd ak ñun ñëpp ba kenn ku ne am seefi bopp yoo xam ne addiya da cay génn te loolu rek lañu ñuy yéene mënoon naa jàpp boppam nekk ca lam nekk waaye nag am na loo xam ne yéene na ko bëgg koo tasaare ci ñëpp waaye ci yow la ko bëgg a jaarale jëfam dañu bari gis nañ ko te xamuñu jëmam man de yor naa say bulldozer ci mbalem sëñ Tuubaa bi ba tey ak beenam yoo xam ne dañ ci liggéeyal Serigne Touba ci ndigalal Cheikh Ibra Fall lu ñu jox te xawuma ko woon moom jëm ji bañ demee ba nga xam ne sopp na lii baatum ndigal moo ma dugal boole ma ak moom sëñ Gunda Fall sa doom di jëwriñu kër sëñ Bissou Alxuraan moo ma jël boole ma ak moom mu def ma ci list député départemental ma nekk troisième position loolu mooy sama xamante ak moom waaye nag jëf joo xam ni daana ko fi jox ba loola am ñu am ci moom yaakaar am ci moom cofeel fas ko yéenee jàppale moo tax loola am kon nag sëriñ bi ñoo ngi nii ni am xon di def daal ay doomam du nàmpal bu foree ba noppi da leen di xool yëpp reg ñu ngi ci sa kanam di la diglu jërëjëf Fall ñu ngi lay yaakaar baax di sant bu baax di la ko dégg nga ñaanal ko bu baax kàttanal ko ndax ci jàmbaari Serigne Touba yi ci la bokk ndax Serigne Bass Abdou Khadre moo ma seedeel na ma ci jumaay Touba jii liñ fi njëkk a jëf bi Cheikh euh, Sidil Mokhtar day yokk sooroor moo njëkk a yëkkati ñaari milliards jox ko mhm. loolu Serigne bi moo ko wax mu seedeel loolu nag su toogee fii mhm. dañ waroon koo def ñun mhm. di alali Cheikh Ibra Fall dañ war koo def mhm. moom mu defal ñu ko loolu lañ koy sant ci jëf jooju ñu jëf mhm. loolu lañ ca xam liñ ca xam nag lañ ci seede rek Fall ñu ku ñu dénkaane la ku ñu bëgg nga ñaanal ko la yàlla jàppanil ko te kattanal ko ndax sëñ Tuubaa rek a ñu ñor ku ñu liggéeyal ñu sant la waaw jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh sëriñ bi sëriñ baa ngi lay nuyu mu ngi lay sant mu ngi lay gërëm ci sa tànk yi nga dox ba ñëw ba ci moom lu ko neex la sëriñ bi wax na ne fii kët ay taalibe sëriñ Touba rek a fi ne nee na képp koo xam ni dox nga ba fekk ko fii ngir jëmmi Cheikh la ngay sàkku Cheikh nee la ko defal kon nag sëriñ bi dégg na sab liggéey dégg na say jëf ci dëkk bi ah, ndax yàgg nañoo dajeeg say oto ci mbalem Touba mii yàgg nañoo dajeeg say jëf ci mbalem Touba mii tey gisuñu la waaye yàgg nañ laa dégg ci jëfal Serigne tuuba kon nag sëriñ Touba ku koy jëfal sa bopp rek ngay jëfal maam Cheikh Rafal nag mii nga xam ni moo toog fii képp kuy liggéeyal sëñ Touba loo dugg dana ci dugg loo duggit dana la ca jàppale ndax liggéeyal sëñ tuubaa moo fi bàyyi Cheikh Rafal mi toog kon ku koy jàppale rek ci liggéeyal sëriñ Touba la nga bëgg da ko am ndax xam nañ ni lii nga bëgg waxtu woo ci jotee da ko indiwaat kër sëñ Touba te da ko indiwaat it kër Cheikh Rafal kon nag sëriñ baa ngi lay ñaanal lii ngay wut ci réew mii yàlla nga ci jot ndax nun réew mi bu nu sañoon ñi ciy ëpp doole moo ñuy liggéeyal Serigne Touba. taalib sëñ Bamba la waaw taalib sëñ Bamba daal bu buñ sañoon lu mu bëgg ci dëkk bi am ko lu mu bëgg ci réew mi am ko. alhamdulilah waa Kër Cheikh Ibra Fall de buñ sañoon taalib sëñ Touba lu mu bëgg dana ci jot. kon nag sëriñ baa ngi lay ñaanal lii nga bëgg yaa ñi nga àndal yàlla na ko Cheikh Ibra Fall def. amiin ñu ngi la koy ñaanal bu baax ndax sa jëf ci kër sëñ Touba rëy na lool yàgg nañ koo dégg te xamuñu la ginnaaw yàlla dogal na nag dangaa bëgg a dugg ci liggéey bi liggéeyal Cheikh Rafal dong moo tax nga bëgg a dem fa nga dem yaag ñi nga àndal kon nag yàlla na yàlla na Cheikh Rafal def ni lii nga bëgg yàlla na ci jot réew mi sax Cheikh Rafal def loolu waaw jërë ngeen jëf loolu joote ñaanal إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله